koo manti doon rek forcé nga am ci xéewal gi yàlla moo toll noonu kon ñu ngi ndokkeel ñëpp di ñaan suñ boroom subhanahu wa mu may ñu ñu fekkee yu bare bare ci kanam eh, li ñu ci jot a defit eh, ci jëf yu baax ñu ngi koy ñaan mu nangul ñu ko jéggal ñu it rëcc rëcc yi ndax doomu aadama matul eh, lu am solo nag moom nga wax soxna Ayda soo seetloo jullit eh, fu mu toll waar wu daanu rek am na weneen waar wu dëgmal wu mu war a ubbi soo seetloo jaamu yàlla yi am na am na ci yoo xam ne lu demee ni ki julli moom fu ñu toll rek mu ngi ànd ak nit ki waaye yeneen yi ci des yépp dafa ñëw eh, saisonnière maanaam dafa am time waxtu bu muy ñëw su paasee mu delloo waaye soo ko seetloo jaamu yàlla yooyu benn bu ci ne dafa am lu ko tax a jóg moo tax bokkuñ ni ñuy ñëwee nga soo seetloo jullit julli eh, wala jaamu yàlla in général li ko tax a jóg mooy pour beesal buum gi nga xam ni moo dox diggante jaam jaam bi ak boromam eh, li jaamu yàlla gi gën a am solo pour di beesal buum googu mooy julli nga xam ne ci bis bi danga koy repeat ay yoon waaye weeru koor weer wi nga xam ne moom la génn moom soloom mu ngi dëxañu ci ne diir bi nit kiy dund di beesal buum gi dox digganteem ak boromam fukki weer ak benn eh, dafay xëx li wolof di tuddee xëx xëx mooy su fekkee danga daw ba ba mënatuloo a dem waaw moo tudd xëx eh, walla nga xam ne dafa daw ba fàtt eh, jaamu yàlla su su nit ki yàggee ci ci jamono bi ci environnement maanaam fukki weer ak ñaar dafa am ay tilim yoo xam ne ñooy fàtt sa xol bi eh, fàtt sa ruux gi ba nga xam ne xël wi nga doon mun a dawee di dem ci sa borom dafay wàññeeku loolu moo tax suñ borom subhaanahu wa taala lu ñu weeri koor pour nag mooy ñëw nag pour setalaat tilim tilim yooyu ba nga xam ne xol bi dana beesaat ruux gi dina beesaat pour nit ki nag mën a continuer moo tax eh, su weeru koor jeexee li ñuy séentu ci jullit bi su fekkee ne yàlla dimbale woon na ko bam defe ba mu defoon ko ni nga xam ne noonu la ko suñ borom subhanahu wa bëggee ca koor gaag ca naafila yaag eh, ca eh, tabe gaag joxe sarax yaag ci eh, contrôle walla boog saytu làmmiñam saytu bëtam saytu léppam loo xam ne yàlla jox na ko ko muy cër mu daan fexe fexe ba cër booba du ci tooñ suñ borom subhaanahu wa ci jamono weeru koor li ñu séntu mooy cër yooyu yëpp fi ne làggi nañu ci eh, training bi nga xam ne ci la ñu nekkoon soo li ñu séntu mooy ne fi ñu toll ñëpp defaru nañu waaw eh, te itam ñëpp seet nañ ci bàkkaar mel ni dañuy continuer nag eh, ci ni ñu mel noonu pour nag di moytu pour ñu taqaat donte nga xam ne mënta ñàkk waaye suñuy taqit na nekk pënd yoo xam ne soo yëlëboo rek mu dem waaye bu doon loo xam ne dafay xoomaak ci sa jëmm ji euh, loolu la sant wala boog la ñuy digal suñu bopp di ko digal képp koo xam ne euh, ooroon nga ci ni ko suñu borom bëggee woon waaye doomu aadama walla jaamu yàlla toujours dañuy wax ne day naawee ñaari mbagg mbaggam xawfu te mooy ragal ak mbaggam rajaaw mooy yaakaar fi ne ni gannaaw boo xamee ne def nga niñ la ko sante ci sharia xam nga soxna Aida dafa am ñaari mbir yu yu mët a xàmmee mooy sharia ak xaqiqa xaqiqa kenn du koy xam yàlla moo koy xam waaye sharia mooy lu ñëpp xam sharia mooy àtte yi nga xam ne da koy bind dañ koy bind ñi di ko jàng théorie la dañ naan la weeru koor farata la nii lañ koy defaree su yàqoon nii lañ koy defaree lii moo koy yàq lii mooy lii lii mooy lii yooyu mooy théorie yi nga xam ne sharia moo ñu ko jàngal waaye mu am nag lu dëxañu ca roon mooy gannaaw bi nga ko defee nii la ko sharia waxee ba pare lu taxoon nga di ko def mooy pour yàlla nangul la ndax yàlla nangul na la xam waaw te pour yow def nga ko ni la ko chéré waxee lépp def nga ko waaye ndax yàlla nangul na la dangay pare nag doomi tàllalaat sa sa loxo yi yàlla ne ko dama lay ñaan nga nangul ma li ma la defal te yàlla du wax ak yow ndax nangul na la walla nangulu la xamuloo fii nag fi la mbir yi daxañu bu boobaa li ñu simtu mooy su fekkee nañ la ko sante woon defee nga ko na rafet njort ci ne suñ borom subhaanahu wa taala nangul na la su ko defee nag nga sant ko ci waaye nag nga dese benn palanteeru jàq tiit ndax nangu na koom déet parce que doo jël 100 percent nga def ko ci nangu gi nga baxi fa tuuti su ko defee loolu njàqare soosu mooy tax toujours ngay bàyyi sa xel di moytu leneen lu la tilimaatal ndax nga mën a continuer mission bi nga xam ne moo la fi tax a ñëw euh, su ko defee kon euh, ki nga xam ne nag yàlla nattu woon na ko ba mënut koo def ni ko suñ borom bëggee kooku tam suñ borom woo na ko ci alquranul karim ne ko man sa borom jéggalaakoon la bul naago maanaam bu ko mooy ba tax nga nga nga nga nga naagu ne yow kay moom yàqu nga yow dugg nga safara yow jeexal nga déedéet du loolu mën na am ne sax kii nii nga xam ne def na ko ni ko sharia waxee ba pare mën na am ne sax yaa ko ndax kooka su ci gisee boppam ci jëfam lam jëfoon lépp daanu la yow mii nga xam ne moyoon nga waaye yëg nga de moy nga nga yëg ko tiit ragal sa borom tiitaange googu mën na am ne sax yow yaay jiitu kii nga xam ne moom defoon na ko ni ko suñ borom subhanahu wa taala bëggee kon ki nga xam ne defoon na ko niñ ko bëggee na sant boromam ca loola ndax du manoore kese bëri na ñu ko mébét te mënuñu ko bëri na ñu ko bëggee woon noonu te mënuñu ko moom la yàlla dimbale kon na ko sant ca jëf ja te bum gis boppam ca jëf ja waaw bum ci gis boppam na seey ci boromam xeeb li mu def ba pare ñaan ko mu nangul ko kii nga xam ne moom moyoon na boromam eh, ci ay tolof tolof benn nga xam ne dogoon na weeri koor wi te moo ko tey wala nga xam ne woorutoon sax wala wooroon na sax te dogut waaye am na yu ñàkk fayda ay mboosóor ki ci waxantoo ci jëfantu yoo xam ne def na ko ca kooku tooñ na boromam walla wàññi na yoolam ci koor gi kooku na xam ne eh, buntab tuub mu ngi ubbeeku pour nag suñ borom subhanahu wa jéggal ko mboolem loo xam ne lu paase la waaye kooku itam eh, tuubam googu il faut mu xam naka la koy tuubee su fekkee ne li nga li nga bàyyi woon lu mën a dellu si la tuub ga mooy nga indiwaat ko su fekkee ne duut luñ mën a dellu si su boobaa ni nga koy tuubee mooy nga réccu ko jéggalu sa borom masalan nit ki nga xam ne dafa dogoon ci weeru koor bi te moo ko tey kooku luñ mën a indiwaat la la nga leboon ndem luñ mën a delloo si la danga nga koy indiwaat amma su fekkee ay waxantoog ay jëfantu yu mbóosóorantu yooyu loolu duhut luñ mën a seet delloo kooku dafay jéggalu ci boromam tuub ci boromam rëccu ko suñ borom subhanahu wa taala jéggal ko ko soxnaay da nga gis li muy tegtale mooy ndeke weeru koor du weer boo xam ne eh, yàlla daf ci farataal jëf waaye bu jeexee rek ñu break dootuñ demati soo seetloo ci weeru koor bi eh, da njullit yaa dafa feeñ ci mboolem doxini jullit ñi sa waxin soppi nga ko sa doxin soppi nga ko sa colaay soppi nga ko li nga daan li nga daan jaamu ci yàlla soppi nga ko media yi sax soppeeku nañ télévision si télévision bi boog macha allahu taala programme yi diine macha allahu taala radio yi yëpp soppeeku nañ foo toll yaa ngi dégg ñu ngi wax ci eh, ci weeru ko wax ci diine eh, ku nekk mu ngi moytoo génne ci làmmiñam yi parce que dafa woor eh, waaye li ñu tiital mooy